siraatal mustaqima siraatal lazina an'amta alayhim xayril maxluubi alayhim wala daalliin man Fallou Ba may bëgg waxtaan ak yéen ci mbiri Touba Bogo yéen ñii fi sama bokki talib yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu te di leen siyaare te di balu àq te di leen xamal ne Touba Bogo gii ñuy laaj tey naa ci wax tey loo xam ne lii ah bëri ñoo xam ko wax ko ndax man mii di wax ak yéen tey ba ñuy sanc dëkk bi téeméeri waxambaane lañu fanweeri daara ak fi noonu mbaar mi njëkk a njëkk def ci dëkk bi mbaarum geer la booba mun ñu am nga tax fii lañ ko def ci buntu jumaa ji mbaar mooma booba téeméeri ponkal la fanaan kenn ku nekk boo dikkee da ngay laal sama laan tëdd ba ko am na ku ñuy wax euh, sëñ Mor moo doon suñu yi ñu doon di ko samp muy wër euh, fii sëñ Mat Soog ci la faatoo moom dëkk bi ba nga xamee bi sëñ Fallou sanc na ko ba yeggal tasaare daara yi ñuy fanweeri daara ak yett daara ju ne mu jox ko ñeen fukki bërigoy gerte jiw jox ko dugub ba mu doy muy dunde dëkk bi at mooma juróomi téeméer bunt kër mooy li fi nawet njëkk njëkk nawet ci dëkk bi booroom kër bu ne li sëñ Ibra wax sëñ Ibra Njaay la wax borom kër bu ne lam soxla ci dund jox na ko ko lam soxla ci jiw jox na ko ko lam soxla ci machine yi ak yooyu mbay jox na ko ko dëkk bi nag Serigne Fallou yàllaa ko ko baaxe waaye dëkk la boo xam ne sëñ Abdou Dar Rahman Thierno Ndiaye mi di safaram wax na ma ne am na fukki at yoo xam ne kuy gu rëy gee fa marché ba nee na am na fukki at yoo xam ne at mu jot ñëw na fi lu mat yetti yoon toog fi di wër dëkk bi ngir leer dëkk bi kon dëkk bi dëkk la boo xam ne bii dëkku baatin la yàllaa ko baaxee sëñ Fallou. waaye dëkku baatin la boo xam ne bii am na lu fi ne lii ngeen di laaj tey tey ma wax leen ci sama xam-xam boo xam ne xam naa ko ci man tam leer ma naññi na ngeen xam ne dikk ngeen ci dëkk boo xam ne bii li fi yàlla def defal ko fi sëñ Fallu defalu ko ko fenn dëkk bii rek la sëñ Fallu wax ne ku nërta defar du fi dikk kuy yàqu du fi dikk kuy nar a yàqu li doo fi dikk kon na ngeen xam ne dëkk bii dëkk baatin la dëkk bii dëkkab saayir la ndax dëkk boo xam ne at mën ko njëkk njëkk a sanc juróomi téeméer buntu kër lañ fi bind lemp kon war ngeen xam ne dëkk boobee dëkkab leneen la waaye nag sëñ Fallou waxoo ne dëkk bii tacc na tasar del na tacc na tasar bu leloon tacc dootu tasar mukk dañoo yegg ci tasar nag fi ne moo tax bi ngeen dikkee di laaj dëkk bi sëñ Ibra Njaay ñetti téeméer ñetti téeméer kaare la am Touba Bogo ñetti téeméeri carré Sëñ Ibra Njaay am na ko fi mu ne te juróomi téeméeri carré la woon kon war ngeen xam ne des na ma bëgg ngeen xam ne dëkk bii sëñ Fallou mi ko sanc yàlla may na ko lu mayut kenn ndax li yàlla sëñ Fallou lim am da koo jënd sëñ Fallou nga njëkk a defee baatin ca njaareem bi sëñ Tubaay nekk mu wut kër njaareem moroom saayir ci saayir moroom yëpp am fa kër këram nga ay mango la ko jëmatoon boo gisee dëkk yu mango du fi yomb kër ga da ko jëmatoon ay mango ba mu fees kara ba ko joxee sëñ Tuubaa sëñ Faal sëñ dafa dagg lu mango ya kon na ngeen xam ne sëñ Faalu yàgg naa am baatin mu ne ko demal Tuubaa bi mu toogee ba nga bi toog na ba di leen jox ndigalal dem neen ci àll ba gori fekk sëñ Modou Moustapha ànd ak sëñ Fallou kenn ak sëñ ma Massamba ak sëñ Mor Roqe Bousso sëñ Modou Moustapha gor ti doodi sëñ sëñ sëñ Masamba gor ab Daaru Karim sëñ Mor Roqee gor Tàkke sëñ Fallou gor Ndindi ñu bokk fi ne ba yàgg sëñ Tuubaa woo leen ne damaa bëgg ngeen wuti foo xam ne da ngeen fay liggéey ji ndax liggéey mënut a ñàkk ñu ne ko ah ñun day Mbàkke jotoon na ñoo ay barab ba doon fa liggéey mu ne ko barab ya fan la ne. mu ne ko mu ah, sëñ Modou am na fu ñuy wax Tindodi man mii am naa fu ñuy wax euh, Ndindi sëñ Mor Roqeya am na fu ñuy wax euh, Takke sëñ Massamba am na fu ñuy wax Daaru Karim mu ne baax na sëñ Fallou wax ne ndigal loolee ko sëñ Touba joxoon moo sëñ Modou Moustapha ak ñoo ñi mu ko bokkaloon bi mu ko ko bi mu ko ko joxee ndigal ak bi mu ko defee juróom fukki at la ak juróom sëñ Modou Moustapha nag bi nga xamee bii sëñ mu mag bi làqu na ko la daal dem gori Taïf Guèye sëñ fallu dem fa tuddal ko ko sëñ Fallou wax na ne keroog ba mu demee di seet sëñ Moustapha ca nawet ba ci sàncam bu njëkk daa fekk muy muy sàpp xaw ma yéen gone yi xam ngeen sàppam déet dafa dem ci àll ba de bay uh, xur yi di ko xuruf ne dafay bëgg ji sàpp boo xam ne bii daa bëgg bu ñoree mu mën koo witt ñu ëcc ko di ko sàngoo. mu dikk laaj ko ñu ne suñ suñ Mourou Moussa dégg ci àll bay sàpp mu daal ne ana fa mu ne ñu ne ko ma ngi ci xurwale mu war fa sam dikk daal di wàcc ne ko looy def nii mu ne ko ah, fii dama fi liggéey loo xam ne damaa bëgg buñ ko fekkee ñu mën a am luñ ci sàngoo mu ne ko xanaa xamoon ne yaay yaay xalif général di murit boo fi bayee bala ñoo woddu dañoo bay dootu fi jóg xanaa gisoo jëli ndima yu nii laajal jëli ndima yu mu wàcc lii ma leen wax yéen ñëpp xam ngeen ko daaru xuddoos du ngeen fa dem mukk tu fekk fen jëli sëñ Fall foofa la tàmbalee def tayif baatin la ko tàmbalee defal sëñ Ngor Moustapha foofa ne ko laajal ni ma yu mu wàcc waral ñu war fa si ñibbi ban ñëwee mun ko bul sàppooti ni ma yaa ngi nii na laaj ko bu wàcc ñu ñibbi si sëñ Fallou del siaat bi mu nekkaatee ndindi ba ne fi ab diir bëgg seedi maam Cheikh Anta Daaru Salaam fekk booba leen ko yóbbu Ségou ñu ne ko maanaam feeg yaa ngi fii ki fi nekk di commandant du la may autorisation nga mën a dem seeti ko moom ci boppam mu sanc Madina lu loo andi sanc Madina ba ba mu demee Madina sanc ko tubaab ba fa nekk may ko autorisation mu dem ca maam Ségu ca maam Cheikh Anta ne ko yow laa jël si mu ne ko ah bu ko sa baay waxoon de ma ñëw mu dindi suur ki dara jox ko ne ko balaa tilim nga fekk ma Tuubaa de suul tur bi mu yëkkati turki dara ba jox ko ba sëñ Fallou ñibbisee turki dara boobu mu laata tilim maam Cheikh Anta ñibbisi na segu loolu bokk ci ay xar baaxam ma defee ne ndax sëñ Fallou moom ba ko yàlla bindee la ko bindaale lim àndal kere ba nga xaay bii gane na àdduna ci sunuy nopp Dar Salaam ba nga xam yëg yëgle nañ ko ba ko maam Cheikh Rafal déggee dafa dikk ba ci buntu ba mu sukk maam aw bu ne ko jàll si mu ne ko du ma la fekk ci néeg waaye leer mu fàtte ma leer bi bu ma fàtte leer bi moo fàtte sëñ Fallou dafa juddu woor ngeen xam ne sëñ Fallou moom judd juddu di di nit dafa judd di woor leer bi moo fàttaliku Cheikh Rafal wax ba mu yett yoon mu ñibbi sëñ Fallou musu ko waxtaanee Cheikh Rafal musu ko waxtaanee keroog ba mu tabaxee jumaa ji ba mu yegg mu taxawal sooror bii ne Baye Man Ndiaye Binta Baye Mbaye Sall mbay Ndaw maa ngi leen di laaj sooro bii junni bi ku ma wax ku ma ko tudde ma jox la ko ñii naan maam buso ñu ne maam Mor Anta Sali ñii ne sëñ bu ne ko déedéet kanama woon bul ma fàtte moom laa ko ségg de mooy sóoro bii tey xarbaaxi sëñ Fallou man na cee yan di wax de te kenn du ko jeel dëkk bii ngeen di laaj nag dëkk la boo xamee bi karbaaxam ak mbiram yàlla du ko lëm a ah, am ci lum tàllal am lu ci des sëñ ba li wax dëgg la waaye nag da ci am lu xew loo xam ne lii daa yëg seegut lu jot yomb njaay mu muñal rek. ñaanal fekk ko jàmm ni ko bëgg da nga ko ni amee ñii nekk bu seen wàll duñ ko def xëj na du seen wàll rek waaye mbooleem ñii fi daje day kenn ku ci nekk am na ci ñoo xam ne fekk nañ gor ba am na ci ñoo xam ne seen baay fekk nañ gor fi nekk ñépp koo xam ne kii fekk woo bi fi nga juddoo wala sa baay dalaa woo fi waaye ñoom ñëpp nag ñi fi toog ngir yàlla jëmmi sëñ Fallu te tàllal yàlla seen loxo di ñaan ci barke sëñ Fallou mi leen fi bàlli yàlla dafa leen ay xéewal ñun de sëriñ Fallou nee nañu woon lu ngeen seen muy xonq bu leen ca tiit du yegg si ci yéen tiituñu dara tiituñu dara defaluñu dara waaye tiituñu dara lépp luñ bëgg yàllaa ñu koy defal ci barke sëñ Fallou Mbacke mi sañ ci dëkk bi fanweer daara yett yi fi newoon li fi des bëreetut su ma ko dee lim su ma yóbbu mu ne juróom rek laa fi gis ci ñoo daara yi bokk juróom ñenn ñaa ngi Tuubaa ñi si wàcc nañu liggée fekk suñ fàllu kon ñi fi yàlla bàyyeegum yàlla nañ fi yàgg yàlla na leen fi yàlla bayi maa ngi leen xamal nag sëriñ Abo mi nga xam ne moo leen fi yebal si ngir bëgg ñu wax xar baaxi sëriñ Fallu ak bëgg ñu wax xar baaxi sëriñ eh, eh, xar baaxi Touba Bogo na ngeen xam ne mooy sëñ Fallu rek foofee mu toog ne leen ne du doomi sëñ Fallu sëñ Falloo nit yomb la waaye doon nit lu jafe dafa doon dafa doon sëñ Fallu na leen seere ne man mii di wax a yéen day jarabu naa ko daaw jéeg <coughs> keroog lan woo dongo yi ñu daje fa di jébali suñu bopp fekk àll bi mar lool ma dikk ñu dikk toog maa moom ci biir saal bi <coughs> ku ma may ci boppam la nag ma ne ko sëriñ bi sëñ Fallou la la la sëñ Tuubaa ne woon ya ndox maa ngoog boole naa la ak Mikaayil boo nee ma taw mu taw damaa bëgg suñ tool yee bu mu yàqu mu ne maa ngi ñaan na taw ma ne ko waxuma nga ñaan laajal lu muy ñaan da ko moomut waxal na taw rek boo ne mu taw dana taw waxal mu taw mu ne maa ngi ñaan ma ne ko waxal mu taw mu ne dana taw bu ma fanaan si fii ci guddi ga guddi ga ca des ci la taw a taw ba ndox mi bëree bëri ma delluwaat dikk ne ko ah sëñ bi damaa bëgg nga dimbale ñu fee ñu nekk sëñ Fallou ñu fa bàyyi te yow rek la ñuy dëhërloo dimbale ñu lépp luñ jaaxle nag ñu ci taxawal kon na ngeen xam ne sëñ Fallou moom nit la koo xam ne kii kenn mënut jeexal mbiram man mii di wax ak yéen nag am na lu may dégg ñu di ko wax <coughs> tey ma wax leen ko man mii la ndox suuf laaloon sama rak ju ma bokkal ndey baay ñu fanaan ko lugg ba asamaan set ma jaaxle ci dikk fii ci kër gi woo ko mu wuyu ci buum gi mu ne ma ku mën a ko mën a fallu mu ne lu ma doon ma ne ko ah, ngóor dee ndox suuf la daa tëra wàcc mu ne tibbal suuf téye ma tibb suuf téye sëñ Fallou boo déggee ñu ne wàcc na su wàcc na jaan ci ci ci ci man mii sama rakk la ko defaloon kon loolu xar baax lu waxee yu neex a wax la nan xam ne sëñ Fallou moom ah lim am daanaka sëñ Ibra dafa wax lenn li sëñ Ibra Njaay wax sëñ sëñ Mourou ba wax lenn li kon jëru ma di ci jaaraat ay xar baa xam kenn mënu ko jeel waaye cosaani dëkk bii nag ni nga xam ne ndigalal sëñ Touba dëkk bi na ngeen xam ne leeru kese la goo xam ne kii képp goo xam ne kii yaa ngi fi booy boo sa xel dal loo mën a gis lum loo mën a séen loo mën a dégg du yegg si doo ko gis sëñ Fallou ñu ko ñaan tu du fi dañ mukk kon nag maa ngi ñaan yàlla suñu borom moom mi nga xam ne moo leen fi yebal si ak suñu mbokki taalib yi toog yàlla nañu yàlla dimbale te may ñu nawetam jàmm te may ñu jàmm te jubal ñu te jubal ñu si barke sëñ Fallou Mbacke. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. man Serigne Mbaye Diop Touba yéen ci xar baaxu El Hadj yi nga xam ne man def maa defar ndax man bu ma defar ba tey waxatuñu samay wax sëñ Fallou ma defaral boppam ci li nga xam ne ku ma ko wax ku di nga xam ne sëñ Fallou ma defar. man béré ma indi woon fi sëñ Fallou booba damaa bëggoon jal njaare dakaar inspecteur yu Diourbel ak commandant bi ak SAR gendarmerie ñoo ma ne woon laa bëgg a defal maanaam kii nga dem dakaar ndax ñu am euh, sanction di Diourbel yàlla dogal may béré boo dem fi ngalañ béré fa yalla dogal ma daje fa kañ wax Moussa Seck Moussa Seck dëkk Ñaaxar eweti woon yaa ndek du mu gis ma ma béré fa ak jaata njaayu piji daan ko bi ma ko daanee nag léegi mu woo ma ne ma nii ma la gisee di damaa bëgg yóbbu la si ñaaxar ndax a ah, nga foog bokk ci invitation bi fekk na sama mag ji fi jëkku na ne nekku nag ñii ci daara ji wàcc na bu ñu bu sëñ sancal ko daara fale ñaaxar mu ko sancalee foofa daara ma béré ji fa yéendu ci kër Moussa Seck maak yaande koddu ak ñu mel ni moom bi nga xamee ngoon jot na waxtu wi tembe Moussa Seck ne ñu léegi da ngeen di dugg ci ci ci ci da di dugg da ngeen di dugg ci oto bi maanaam circale yéen mbir yi bi ñu duggee ci oto yi circale Serigne mbay nag dégg ma foofa ne loolu de bu amee sama rakk ca mu mu yónni taalibeem bu ñuy wax Modou Ngom mu ñëw ci buntu euh, lamb yi ne ana ku ñu wax piti Diop ma ne maa ngi nii mu ne sa mag bi ñuy wax Mbaye Diop Fallou xam nga ko ma ne ko waaw mu ne man nee na nga ñëw fekk fi ma ne ko a ah damaa xas gémm ba noppi nag mënatumaa kii fekk euh, inspecteur ak commandant bi seet nañu sama autorisation léegi ba ma am 37 euh, combats 3 défaites léegi mu ne ma léegi il dañu laa def sanction léegi bi nga xamee ne Sëñ Bay Jóob ci boppam wax na ma ko ma ne ko nag man daal fi mu toll foo toll mu ne ma man de maa ngi toll ci euh, weesu àggaguma ci poids lourd waaye weesu naa poids léger maa ngi ci poids moyen mu ne kon dama laa yóbbu fa sëñ fallu mu ñaanal la ma sawar ca lool ndeke sëñ Mbaye booba def may nax mi nga xam ne agsi nañ fi sëñ Fallou sëñ Mbaye nee ko sëñ bi day sama rakk ji def ma bëgg lamb raw ci lamb ji ma bëgg nga ñaanal ko mu bay bere sëñ falu ne ma loo loo xam sama sa mag wax ne ko Mbàkke di loo ma digal ah, ne Mbàkke di loo ma ci digal ma def loo ma tere ma bàyyi ma damaa nga bay bere te liggéey sëñ Tuubaa bu la sëñ Tuubaa gémbe kenn doolu la daan man ma mer ndax ma ne man xaw ma nu may def ba bay bere ginnaaw man ci laa ci laa xam tu lu ma am ci bere laa ko def ah wax dëgg mënu bay bere ndeke waxu sëñ Fallou pikiir la ndeke siñ falu pikiir na ma bi mu waxee noonu ma ne ko mag génn xam xam na am naa am na wenn gu nekkoon foofu ci ett bi ma ñëw ma ñëw ci ett bi toog bu sëñ bay ñëw bi sëñ bay ñëwee ñu ànd ba dem ñaaxar bi ñu demee ñaaxar maanaam ki ñuy wax duut joox maanaam yónnee ma ma ñëw mu ne ma dañu laa dégg fii dañu laa dégg fii te bëgg laa jël ma ne ko ah man day am na lu ma sëñ Fallou wax waaye nag dinaa ñëw bi ma ñëwee maanaam ñu jox ma affaire ngémb ak añ gis nga galan bu njëkk ba nga xam ne moo njëkk ne kenn ci làmb ja dafa mel ni dañ maa naawtal maanaam sama yaram yëpp di lox ma dem deloo ko ñeenti téeméer yi nga xam ne ñoom lañ ma joxoon ngémb ma dem deloo ko ma ne ko nag léegi ginnaaw nii la maa ngi dem bi nga xamee ne ñëw naa maanaam sëñ Fallu bi nga xamee ne jóge naa foofu ca ca euh, jaareex ba ñëw bi ma duggee ci daar ji rek la mbir ma ne kerset booba laa gi a dugg ci lam bu fii mu ne booba laa gi a dug ci lam sëñ Fallu moo ma defar waaye man bu ma defar doon ba tey doo waxatuñ ma dégg nga maanaam sëñ Fallou li mu def ci man mënuma koo su ma doon wax fii bugg ginnaaw gi nekk naa ci daar ji maanaam ki ñu wax Salaam Ndiaye moo jëkk doon sama jawriin Ali Seck moo ca tege ah Cheikh Lou moo ca tege ginnaaw gi ñu doon ma ñu def ma jawriin jawriin bu gàtt ñu door maa wàcc année année euh, mille neuf cent soixante-dix-neuf fali Touba kon loolu man sëñ falu moo ma defar. Sëñ Fallou ma defar defar ba nga xam ne mbooleem ñi nga doon àndal ñëpp ñëpp ku ci li li même Sëñ Fallou defal defaluñ ci kenn ndax mbir mu doon bëre tey su ma ñëwee ci kër Sëñ Fallou boo ma fekkee mbooloo mu wer ma dangaay defe ni kii ba mu doo bee mu ngi ci daara ji. ku am. te man ci fan yi rek laa fi ne kon nag ah, maanaam su ñëwee boo gattale ko noonu ah? baaxu Sëñ falu baaxu Sëñ Fallou daal ne su koo jeexal. Ah? baaxu sëñ Fall daal mënee si koo jeexal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu woo. asalaamaaleykum yéen gan ñi fi nekk ñu ngi leen di siyaare yéen gan ñi ci di leen dalal ci xam ne ñëw ngeen ci dëkk boo xam ne sii mooy dëkk sëñ Fallou ko sañc muy Touba boobu gi sëñ Fallou ko sañc dëkk bi nag sëriñ Fallou ko sañc ca bam koy sañc dafa nekk ku mënta defara du fi ñëw ku yàqalu du fi ñëw kon kon bu yàlla dogalee maanaam ngeen ñëw fi di wax ci ustaaru sëriñ Fallilu damaa dégg léegi ngeen ne ndax sëriñ Fallu daana fi nekk yéen ah ñii fi nekk de samay mag lan ñoo bokk nekk ci daara ji ñoo féet mag man ba mu ñëw ci daara ji gone gu tuuti laa ñoom ñi ñu doon ay mag doon ay mur sareex ma doon gone gu tuuti nekk fi ñoom waaye ba sëñ Tuubaa bëgg gi man na maa na ne sëñ Fall daa bokk ak nun nekk fii ci gor daa bokk nekk nun fii ci gor bi fi la nekk ak nun sëriñ Fallilu bu masaan nekk fii ci mbaar mi ni ko Alaaji Fallu ba waxee léegi ci mbaar mi bu sëñ Fallu masaan xëy bu fajaree day yore ab lampam ñëw dina néet noo fi bokkoon nekk lii ngeen xam ne moom moom moom ngeen wax ci sëriñ Fallilu sëriñ Fallilu ba muy sëñ ci Tuubaa gii nun ñi si noo nekkoon ci daara ji daf nuy woo nun nun nun donga yi nga xam noo ko ci daara ji donga yëpp jëwriñ yi ak ak bi lay woo na léegi li li lii ma leen doy mooy li liggéey bii ma leen liggéeyloo fekkee jëme naa ko fenn foo xam ne si du ci ci jumaa ji yàlla na gerte gi mel na jiwu xorom fekkee ci jumaa ji dong laa ko jëme nag yàlla sant coleet ba ni jumaa ji noppee fun bayee fii ba noppi day sotti coleet benn nawet musta musta am gàllankoor day daan àgg ba ni jumaa ji àggee ba nga xam si ne jumaa ji àgg na it dajale noonu fii ci Touba Bogo na na na yéen day war ngeen sant yàlla bu baax a baax a baax ndax am ngeen loo xam ne si ne kenn amu ko ndax Sëñ Touba li mu bëggoon ci Touba mooy jumaa rek la bëggoon koo defal ci Touba. man mii li ma bëggoon sëñ Tuubaa rek mooy mooy liggéeyal ko jumaa waaye yàlla dogal na sëñ Tuubaa li mu bëggoon am na ko mooy jumaa may li ma bëggoon sëñ Tuubaa am naa ko mooy mooy mooy liggéeyal ko jumaa kon nag yéen ñi ma ko bokkal nga xam ne si yéen a liggéey maa ngi leen di seeral na leen am ngeen sama gërëm am ngeen gërëmu sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa jumaa la bëggoon ci Tuubaa am na ko may liggéeyal sëñ Tuubaa jumaa la bëggoon yàlla defal na ma ko ci fii ci Tuubaa boog yi laa ci Tuubaa boog gi moo tax Tuubaa boog bari na dëkk yim sanc moom la ci gën a bëgg yàlla ko tuddul waaye kon ñibbi géemu ñibbi àjjana fii la koy defee si ndax toog naa fii sama loxo di metti booba sëñ bàcc ñag mi mooy sama jëriñ ma ngi toog di ma dégg sëñ Ismaane <laughs> sëñ Ismaane Bousso woo ma na ma léegi ñëwal dem ci sëriñ bi mu ñaanal la ma ñëw fekk fii sëriñ bi maanaam ak takkusaani suuf ñu bokk fi toog mu ne ko moor mi loxo ba day met daa daa bëgg nga ñaanal ko sëñ bi nga tàllal sox ma ma mu ñaan sëñ maanaam bi ngaa war a defaru kon ma ma maanaam bu nuy dem nga dem ci ne tuuti sëñ Taïba Touré cëw ba sëñ Taïba Touré ñëwee sëñ euh, nuyu sëñ bi sëñ mu ne ko lu xew mu ne ko Touba fees na dell Mbàkke danoo jaaxle mu ne ko lu mu doon moo ko Touba yëpp jaaxle nan Touba fees na dell ca gis ñu sëñ Fallu muy muy maal gu mag gi maal gi ñaar fan dong ci des ci sa kër gaa ngi wéet ba dee gis ñu sëñ Fallu gis ñu dara ci Touba fees na ñu ne Mbàkke ak jaaxle fa nekk sëñ Fallu man day magali rek màggali dong laay def day màggali dong màggali. kon toogal bu ñu jëlee tiis ba noppi ñaar di màggali bu ñu jëlee tiis ba noppi màggali waaye damay màggal dong de day màggal dong sëñ Usmaan na ma dugal ci oto Baye Sëñ bii ma dugg ci oto bi sëñ tay ba sëñ bi jur sëñ tay ba topp ci oto Baye Sëñ Njaay bi ci laa nekk kon sëñ Fallu defe naa ne Tuubaa Bogo gii yàgg yàgg na yàgg na koo bëgg dégg nga ca it bu ko yàlla tuddoon fii la koy defee si kon nag daanaka man sax mënu maa wax jërëjëf rek. duuf ci nag wi lépp mënut dem ci cin li njabootu sëñ Fallou rek wër fii fe daj ñi àndoon ak sëñ Fallou ak ñi seeni baay àndoon ak sëñ Fallou ci sëñ Fallou daal ku munta xam sëñ Touba munoo koo xam ñun ñi fi nekkit ku ne wax na ci lëf ci xam-xam ku ci nekk wax na ci lëf ci xam-xam ci mënuñu ko jeexal mënuñu koo xaajal sëñ Fallu muneesu nee ko jeex kenn koo fi gis mu gën cee néewoonub xam-xam mën naa nekk ci moom di ci wax di ci wax ba weer wi del si ca déwan seet ca du ko jeexal kon nag ni ñuy def daal moo di sëñ Fallu amul moroom sëñ Fallu amul moroom jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf mënuñu koo jeexal mënuñu koo xam mënuñu koo mën lu ngeen xool ci sëñ Fallou rek loolu ah, ak maayam it mënut jeex waaw xa li sëñ Fallou la mënut a jeex ah. Euh, maanaam euh, yu mujj. Hmm. yu mujj ah, waaw euh, atam yu mujj. aja atam yu mujj. fii ko nekkee woon. kii wax léegi xaw na koo junj tuuti daanaka sun borom daa dogal fii la naroon na deme àjjana sax jógee fi dem àjjana loolu kay kon mooy atam yu mujj rek ah ah mooy ni nga ni nga andee atam yu mujj ndax manees na ko wax ci fii walla dara atam yu mujj fii la nekkoon ndax fii la mujj mujj sañce ab dëkk ndindi gi mooy taaw dëkku sëñ Fallu ci dëkkam ndindi bu taaw dee am moo di taawam bogo bu caat dee am moo dim caatam ndindee caatu dëkkub sëñ Fallu mooy taaw bi ndindi mooy taaw bi bogo mooy caatum dëkk bi bogo rek la bëggoon moom rek fépp la bëgg waaye rawatina ku ne yàgg na koo dégg. Euh, li ngay laaj ci Touba Bogo. moo di sëñ Fallou bi mu sañcee Touba Bogo ba jumaa ji yegg alxames ju dana dem Touba julli ji gaawu bu dana ñibbisi fii toog fi kon sëñ Fallou Touba Bogo dong la bëggoon mu jël sëñ mu sëñ Fallou fii ci ci ci ci Touba Bogo li sëñ Fallou denc ci alal joo xam ne ji may koo tudd bi mu ba mu ba mu wanee gannaaw juróom fukki junni la sëñ Modou Afis la ko joxoon musulooku ko ko ci xer bii. na ngeen xam ne it sëñ Fallou ak nekkam ci dëkk bi ajuma june alxemes june danaa dem Touba julli ji nga gaaw mu ñëw Touba Bogo ajjuma alxamis mu dem julli gaaw mu ñëw Touba Bogo noonu la sëñ Fallou jàppe woon Touba Bogo yéen gan ñi fi ñëw ci pour sunu xalifa dun ñëpp mboolem ko fi neel sëñ Fallou noo leen ci gërëm di leen sant te di ko ñaan moom suñu ëpp yàlla na fi yàgg ak yarkam man di sama wax di ci bari sëñ Abdou Bërëm doomi sëñ Abdoulahi Bërëm dër bi dem naa bayal naa ko sama tool bii mu woo ko mu ñëw mu ne ko demal bojjali ba sama dugub joojee keroog bi mu ñëwee fii loo fekk nu ànd ba àgg ci dugub ji mu ne ma sa yëpp ne ma def lu ma la dara du ndox du dara keroog bi nga xam mi ngi ñëw dafa yebal ñu daa defar néeg ba mu àgg keroog ba muy dem noo bokk oto dem ba mu bojjee dugub jo ba mu àgg di téeméeri saako ak benn sëñ Fallu woo oto mu Modou Aminta Fall camion bu roñ ko indil ko fii bisub keroog njël li nga moom la ko soxna Sooda daa toggal bis boobee dugub ji ñoree muy at ma sëñ Basiiru làqu ba keroog bi sëñ bi làqu keroog benn saako ba ca des altine la ma soxna sooda dama yët ko altine laa ko sëfi fii ci oto bi yóbbu ko altine talaata xibaar bi siiw maa kii doon wax léegi noo ko doon noo ko bokkoon di bay jërë ngeen jëf na ngeen ma baalaax إلى قريش إلى ثمرة الشتاء والصيف barke suñu fan jëf uh, mbokk yi yaakaar naa ne lii moom moo nekkoon état bu uh, tuuba Bogo bi nekkoon uh, nekk comme ni ko suñu maam yi waxee dëkk bi nga xam ne moom la Serigne Fallou Mbacke mujjee sanci bokk itam ci dëkk yi nga xam ne nii mujjee na fee teg li nga xamante ni moom moo di tànkam ñaari fan rek la ci teg dem tuuba daal di wuyu ji boromam kon mu nekk dëkk boo xam ne dëkk bu am taarix la ci yoonu mu di dëkk bu am solo mu di euh, Touba Bogo waaye itam bu ñu waxee ci lu jëm euh, ci aju ci Serigne Fallou ak sanc gi mu ko sanc tamit dégg nañu chef de village yu dëkk bi kaddu yi nga xamante ne yëkkati na ko mu nekk loo xam ne état bu Sénégal ak itam euh, kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo gàlloo réew bu Sénégal war nañ cee gën bàyyi xel dëkk yi nga xam ne dafa gën a ci réew bu Sénégal ñun di gën a bàyyi xel ci lu jëm ci infrastructure yi ak soxla yi nga xam ne dañu koy faral di am ngir ñu gën koo mën a saafaral ci lu jëm ci wàllum ndox wàllum courant ak lu jëm ci wàllum vétérinaire ak yu mel noonu yooyu yëpp ay càkkutee fi dëkk la boo càkkutee fi waa dëkk bi la yoo xam ne nii potoxluwaale nañ ci occasion bi ngir mën koo fésal mu nekk lu am solo ñoo xam ne nag suñu diggante ak màggalu Kazu Rajab li ci des bareetul presque ñu dëkkmal la mu nekk ay bis yoo xam ne presque mën nañu ñaar fukki di jógee dem fi nga ne moom moo di ndindi kon fii lañ leen di euh, tàggoo di leen sant leen gërëm di gërëm bu baax a baax waa dëkk bi ak euh, kilifa dëkk bi Serigne euh, Ibra Ndiaye ak ñi nga xam ne ñoom lañ ñu àndal yëpp si waxtaan bi bi leen dig daje beneen yoon dina wax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu